bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulihi alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum mbokk yi ñu ñëw si suñu jotaay bi nga xam ne moom mooy dundu jàngat lenn si dund suñu Aïcha radiallahu anha wa ardaha tey na si kattan yàlla subhanahu bi nga xamee ne si jotaay bi passé waxtaanee nañu lenn si lii wane xam-xamam moom suñu Aïcha radiallahu anha ba pare itam ñu soññee ci xam-xam te leeral ne xam-xam kat moom mooy li nga xam ne su ko jaam bi bàyyee ci ginnaawam dina ko njëriñ bu baax a baax a baax a baax si anam boo xam ne alal bu mu bàyyi si ginnaawam mun na kaa bañ a noonu euh, lu bari si li mu bàyyi si ginnaawam mun na kaa bañ njëriñee noonu euh, tey nag si kattan yàlla subhanahu wa dañuy ñëw leeral benn tomb boo xam ne itam dafa ajo si dundam moom suñu Aïcha radiallahu anha wa ardaha te moom mooy lenn si grade ak wàccuwaay yi nga xam ne euh, borom borom bi subhaanahu wa taala wërsigal na ko suñu Aïcha radiyallahu anha wa ardaha di wane ngëneelam di wane wàccuwaayam di wane garaadam yi nga xam ne euh, sang bi saasam tappal na ko ko doy na rek nga xam ne borom santala fonk na ko ci euh, lenn si jotaay yi jiitu lii wane ne moom suñu Aïcha radiyallahu borom bi wàcce ne fukki aaya ngir defandre ko te setal itam deram radiyallahu anha wa ardaha noonu itam euh, ci sababam ci xew-xew boo xam ne dafa aju si mbiram ci loolu la nekkoon sabab ci euh, yàlla subhanahu wa taala yoonal lii nga xam ne moom mooy moom mooy tiim comme niñ ko xam waxtaanee woon si ay jotaay yu jiitu noonu itam doon na rek nga xam ne ko am wàccuwaay la fa borom bi subhanahu mooy ne sang bi saa moom la gën a bëgg si ay soxnaam kon loolu rek doy na nga xam ne euh, ku am wàccuwaay la fa borom bi subhanahu wa taala ndaxte kat borom bi subhanahu wa tànn euh, kenn koo xam ne euh, sang bi saa daf koy bëgg lu dul mu nekk koo xam ne ku baax la képp koo xam ne gis nga ne sang bi saa bëgg na ko yitte woon a xamal ne kooku ku baax la ku borom bi bëgg la subhanahu wa taala kon tey ñu ñëw si lenn si ay xadis ak ay xibaar yuy wane wàccuwaay suñu Aïcha radiallahu anha wa ardaha ñu njëkkee si xadis boo xam ne xadis suñu Aïcha la si boppam radiallahu anha muy wax mu ne sang bi sax na ma wax mu ne ma xanaa doo bég ci nga nekk sama soxna ci aduna ak àllaaxira mu ne axakay ah axakay ah loolu bëgg naa ko yaa rasulallah sallallahu alayhi bi sax ne ko kon na xam ne yow sama soxna nga ci àdduna ak àllaaxira xadis boobu ibnu ibnu solo na ko alxaakim al euh, zahabi na ko al itam ak al arnaout wéral nañ ko euh, noonu itam moom suñu aïcha radiyallahu anha dada wax ak kenn ci euh, mag ñi maa ngi njort ne kooku nekkuloon saxaaba moom mooy abdullah ibnu safwan mu ne moom suñu Aïcha doon wax daf ma wax mu ne moom Abdullah ibnu Safwan moom mooy wax mu ne man de am naa juróom-ñeenti euh, xéewal yoo xam ne kenn euh, maanaam borom bi santal jox ko kenn si jigéen ñi xanaa lu ma jox Mariam alayhi salaam kooku moom lu ko jox moom beneen mbir la te li ma lay wax nii nekkul ngir tàgg sama bopp wala yëkkati sama bopp sama kaw ay wuju waaye xéewal la borom xéewal la boo xam borom bi santal ma kaa jox mu bi si jiitu mooy ne euh, jibril indil na sang bi saa sallam sama image maanaam mu gis ko mu gis ko te euh, mu nekk loo xam ne nekkagul soxnaam maanaam euh, jibril woon ko image u suñu Aïcha radiyallahu anha te itam man def ma takk ma nekk jànk maanaam man moom la musa am jëkkër sallallahu alayhi te itam man ak moom dama dañ doon sangu benn mbàjj wax yu di ko dikkal wax yu boo xam ne dafa jóge si borom bi subhanahu wa ta'ala te man nekkoon naa ko xam ne man la gën a bëgg si nit ñi te itam euh, yàlla subhanahu wa ta'ala wàccee na si man ay aaya yoo xam ne euh, maanaam daf ma setal te itam mu nekkoon mbir moo xam ne am na si ñenn si ay nit ñi ñoo xam ne tutte te ñu alku ci muy tabbi si ay musiba dafay junju xew-xew bi amoon ci xaadisatul ifk bi nga xam ne defoon na ci ay jotaay noon itam mu ne gis naa jibril te kenn si soxna yi gisu ko kudul man kenn kenn si soxnaam yi gisu ko kudul man te bu muy gaañu euh, ci sama kër la nekkoon te instant boobu moo ngi sama kaw sallallahu alayhi wa ko loolu nekk ay ngëneel yoo xam ne yu màgg la yoo xam ne borom sant la jagleel na ko suñu Aïcha radiyallahu anha wa addaha noonu itam euh, anas radiyallahu anhu dafay nettali mu ne dégg naa yéen sallallahu alayhi wasallam muy wax mu ne ngeneelu Aïcha si kaw jigéen ñi dafa mel ni ngeneelu lekk bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee assarid ci lekk yépp assarid moomu maanaam lekk la boo xam ne euh, jamono yu njëkk amoon na donte dañuy wax ne itam ba léegi jamono yi am na mais dafa xaw a tuuti ak bu njëkk ba maanam daal mun naa la wax ne daanaka dafa dem si dafa jeng si lu ñuy tuddee ñun suppu nga xam ne maanaam am na yàpp macha allah bari na ñeex noonu itam ànd na ak légume te sax maanaam dañ ciy boole comme ñu ko ñenn ñi waxee dañ ciy boole ay mburu nga xam ne. soo koy lekk maanaam yo lekkam dafa yomb ngir nga utiliser ko dafa nekk loo xam ne lu yomb te dafa am vitamine te dafa baax lool te mu nekkoon lekk boo xam ne sang bi saasam comme nuñ ko waxee comme nu ko nettalikat yi waxee ne moom sang bisa saasam bëggoon na ko lool euh, loolu moo tax euh, almubarak fóori rahimahullah dafay wax mu ne lan moo tax sang bi saasam melal suñu Aïcha radiyallahu anha melokaan bi mu ne ndaxte lekk boobu maanaam dafa ànd ak lii nga xam ne moom mooy euh, maanaam wér yaram ak euh, neexaay si wàllu lekk ak itam force bi nga xam ne dinga ko si am su fekkete ne lekk nga ko te itam lekk ko dafa yomb nekkul loo xam ne tey maanaam dafa bari ay coono euh, macha allah te itam soo koy yeey lu yomb la ngir mu jàll lu yomb la te da leen njëriñ bu baax a baax a baax mu ne dafa melal ni suñu yaay Aïcha radiyallahu anha ngir nga am jàngat si loolu si loolu moom mooy ci wàllu jikkoom yu rafet ci wàllu neex nekkinam moom suñu yaay Aïcha radiyallahu anha ak kàddoom yu neex ak itam euh, wax ji nga xam ne ju dal la boole ko ak xel boole ko itam ak gis-gis bu wér ak itam mu nekk koo xam ne ku mun sey la radiyallahu anha wa ardaha radiyallahu anha wa ardaha su fekkente ne si jamono yi tey maanaam dañuy utiliser lenn si baat yi yi nga xam ne ñun dañ koy utiliser ci melal jigéen dañuy wax ne kon jigéen bu jonge la jigéen boo xam ne bu am xel la jigéen boo xam ne bu neex a nekkal la jigéen boo xam ne bu mun wettali jëkkëram la jigéen joo xam ne itam ju euh, nekk koo xam ne dafa am gis-gis am xalaat ak xel radiallahu anha wa ardaha kon moom lu mu boole si ay melokaan dafa bari benn ragal yàlla bi euh, mbaax gi ak barke bi nga xam ne gis nañ ko si dundam an anha ak jonge bi nga xam ne nekk na ci moom radiyallahu anha wa ardaha ak neex nekkal ak kaddu yu rafet yi nga xam ne daf koy jëmale si euh, sàng bi saa su wax ak moom loolu nekk loo xam ne loolu am solo li nekk ab jàngat boo xam ne bu jar a bàyyi xel la kon ndekete sang bi saa sax melalu rek ay Aïcha maanaam lekk boobu asariid ngir rek en tant que lekk waaye dafa am lu mu junj sallallahu alayhi ngir nga xam soxna soosu nu mu meloon ak nu mu bindoo woon ci côté jikkoom ci côté euh, maanaam nekkinam ak nu muy nekkee ak jëkkëram ak nu muy nekkee ak euh, ay njabootam ak ay mbokkam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko wër ba nga xam ne soo nekkee moom da ngay nekk dal da ngay nekk koo xam ne da ngay sentir yaay ji da ngay nekk koo xam ne itam da ngay sentir maanaam daal dañ laa yaatalal dañ laa nangul radiyallahu anha wa ardaha kon kooku moom mooy suñu Aïcha radiyallahu anha nga xam ne dafa dafa mat si côté yëpp dafa nekk koo xam ne ku mat la si côté yëpp la moo tax dafa mat su fekkente ne moo ngi jëflante ak jëkkëram côté boobu euh, maanaam def daf koy jox akkam si côté yëpp si euh, jonge bi si côté respe bi si li nga xam ne moom mooy taxawaay yu rafet yi li nga xam ne moom mooy dégg ndigal bi ak itam yaru bi ak kaddu yu rafet yi maanaam doo dégg mu koy saa muy saaga jëkkëram wala mu koy xas wala mu koy wax a kaddu yu ñaaw loolu moo tax euh, léeg-léeg nga dégg ñenn si jàngalekat yi wala waaratikat yi di nettali ay xadis yoo xam ne dañ koy askanal suñu yaay Aïcha radiyallahu anha fekk nekkul ay xadis yu wér yoo xam ne dañuy dafay wane ñàkk tegginam moom radiyallahu anha si wax ak sang bi sallallahu te loolu musul am soo fàttalikoo si jotaay yu njëkk ya li ngay dégg fenn foo xam ne sang bi sax dafay wax euh, suñu Aïcha radiyallahu anha di ko wax mu ne man soo meree ni may xamee ne dangaa mer sooy waat boobaa doo sama tur da ngay wax rek maa ngi giñ ci borom Ibrahim ko loolu nga jàngee si ne maanaam moom ay kàddoom yu mu doon jëmale sang bi sax daf ko doon tànn daf doon xoolaat daf ko doon jàngat bu baax a baax ngir bàyyi xel kii kii mooy sang bi kii mooy yonent bi sax kii mooy kii nga xam ne moom mooy. Euh, ku ñu war a wormaal ku ñu war a jox ceer boo xam ne duñ ko jox yaay duñ ko jox pa duñ ko jox papa sallallahu alayhi wa sallam kon loolu nekk loo xam ne lu jar a bàyyi xel la kon yow sa si itam nga bàyyi xel loolu mu nekk la dars boo xam ne dañ koy bàyyi xel da xam ne sa jëkkër sa kilifala nga bàyyi ko xel bu baax a baax waaye itam nga yittewoo sa néegu sëy si côté yëpp ndaxte kat maanaam euh, loolu mooy li nga xam ne moom moo la war loolu mooy li nga xam ne moom moo la war kon lii nii lenn si si euh, suñu Aïcha la ak wàccuwaayam radiallahu anha wa addaha noonu itam sang bi sallallahu benn bis mus na wax kii di doomam di Fatima radiallahu anha wa addaha mu ne yow sama doom ndax bëgg nga ki ma bëgg ndax bëgg nga koo xam ne man dama kaa bëgg après moom suñu yaay Fatima radiallahu anha mu ne axakee mu ne kon na nga bëgg kii mooy suñu yaay Aïcha anha wa addaha ko loolu nekk ay mbir yoo xam ne yu am solo la da lay won yow mi sopp sang bi sallallahu te bëgg li mu bëgg na nga sopp suñu Aïcha radiyallahu anha na nga ko bëgg na ko roy si góor ak jigéen si góor ak jigéen maanaam yow mi góor li nga mun roy si suñu Aïcha radiyallahu anha si wàllu déggu si wàllu mbaax si wàllu ragal yàlla ci wàllu xam-xam na ko na nga ko def en tant que jigéen moom lépp loo xam ne mu nga kaa roy suñu Aïcha radiyallahu anha na ko roy te nga xam ne moom kat royukaay la radiyallahu anha wa addaaha kon kii mooy suñu Aïcha radiyallahu anha lii lenn la si lam nekkul lépp dañ kaa junj rek ngir mu nekk loo xam ne dafay dëppoo ak suñu jotaay comme ni ma ko waxee woon suñu jotaay bi nuñ ko tuddee moom mooy jàngat lenn si dundam waaye nekkul nettali dundam radiyallahu anha wa addaha barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaykum assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa